wasallama ala sayidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajmain asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu o ngi leen di nuyu di leen ziyaara di jiital ci nuyoo bi kilifa jataay bi cheikh mamadul fadal mbakke ibnu cheikh abdul xaadir xaadimu rasul di siyaare di ñaan yàlla sunu borom yàggal ko te wéral ko waaye jaarale ci moom it nuyoo a cheikh mahamadul muntaqa yàlla suñu borom yàggal ko wéral ko di nuyu jëwriñ alaaji mbakki yu fay ak mbooleem kilifa yi fi nekk yëpp nuyu waa kuréel gi soxna Soda ak Serigne Cheikh ñun ko seqal di sant yàlla ci bis bii nga xam ne tey dañ ciy fàttaliku jullik gi Serigne Touba julli woon ci géej gi te Serigne Touba it nettalil na ko boppam aw nit ñam ko nettali it am na ci ñu ko bind boo demee ci sëriñ Moulay buso sëriñ Moulay buso sëriñ Mbakke Bousso mooy way juróom sëriñ bi yar ko sëriñ bi nettali na ko ko moo tax it bind na ko wa fil yammi sallal asr yajri bi jildihi ma al fulki yabdu raakian xayra saajidi kabar kabar bu jekk di rekonx rekonx bu jekk der bi di daw gaal gi di daw mu lang ak moom muy sujjóot sujjóot bu rafet wax na sëriñ Modou Xëri sëñ Modou Xëri sëñ ma sàmb fàttee ko jur sëriñ bu soobee ko jur sëriñ Touba dana ko sant naa yàlla yar doom yar bàyyi ndax moo yar sëriñ sàmb fàtti moo yar sëñ Modou Xëri sëñ bee ko doon nettali lenn ci digganteem ak nasaraan bi ba tuddaale ci julli géej gi daf koo woo ci njëriñam di ko wargaal nee na keroog ab cur ki la sol bu baxa ak mbaxanam curi cara sëñ bee ko doon wargaalal fukki nettali ak ñeent la defe naa am nañu ko am tasaaroona waaye moo ko waxal boppam ne ko te léegi sëñ mamoor bi wax na ko sëñ Moussa Ka nee na keroog la ma sa feeñal xar baax nee na ko tukki bi dem naa ci ba ñëw lu toll ni dee dee yu we feeñalu ko ci baatin lu ci am coobare yàlla xanaa julli géej gi rek nga xam ne moom la ñaan boroomam ngir bañ a faat waxtu boroomam ca la ko leeralit ne ko yeesalug njàpp gi nag mooy dama dul jox waxtu yàlla boroom bi benn jamono tey waajaluma ko njàpp waaye dem naa ci géej gi ba dellu siwaat luy waral lum jàpp defuma ko ci kon ci géej gi da ngay fàttaliku na bis bii tey ci la tàggoo woon fii génn ay këram jóge ndar ñëw ndakaaru def fi ñaari fanam yi bis bii nuy màggal tey dañuy màggal jaloorey géej gi waaye bis bii la génne woon di wax ne maa ngi dem wéet lool anduma kenn samay kër rab ma soreek sama njaboot te li ma ko yóbbee mooy liggéey rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam sama dox bii kër amul benn sabab lu may masiri kaw nii abdahu xaadiman nabi wa am loolu baraya lil ilahi yasiru ba muy dem ñëpp la fi bay tubaab bi attee dogal ne kër gum am nañ ko tas ñu taal mbakke bari interdit gu dëkk Touba mu ne xusuur yi xallat wala ahlu an ni tafaaraxat li maddehi alladi anhul maddihu xasiru kon ku diine ñor ku lislaam ñor boo bëggee sibile wu am nga loo ko defee mooy ndam lii mbooloo mii lim naan gërëm taxawaay bi lépp yëkkati baatub laa ilaha illallah saxal dëgg yëkkati rasulullahi looloo ko waral kon ku diine kese ñor yàlla ñor la bis bii da nga xam ne àdduna bi boo ko waree ba mu daj xuus géej jàll am na war bato ci géej jàll am na li tax sëñ bi def koo tax ko yàlla jaral nga sànni sab der ci géej cëppeelu kàbbar julli te nee na bi muy sóobu ci géej gi xamuloon ne bu tàbbee ci géej gi lu suux bi tàmp tànk yi tàmbalee nuur la yàlla gëdd géej gi na ko jàmm bu ma gërëm moo ne ci sa kaw géej gi na tekk mel ne doj mu ne allahu akbar sëñ Moulay bu sa nee na ci géej gii la jullee Cheikh Ibrahima Diop al Machar yi andi na ko ci xasida gi mu tàmbalee xarajta min jolofin lillahi fi safarin akrim bi safaron xat xaasu kulla yerdi xarajta fi sabti fi shahi rabi hoboha bi jay sasin wali jeewal jita lay seradi bi kokki xilta wa jita baxda luga wa fii safinatil barri xat safarta sa sadatin laxat aqamta bi ndar xinan tasjilu biha daa ad dalail min ahli wal sanadi sumar taxarta jihaaran fi safinatiha tanxu ndakaaru bi isnil muminil abil waaye nee na ko keroog bi nga kàbbeere ci géej gi bato bi nga doon tudde yàlla benn xol musu faa tudd yàlla kenn musu faa tudd yàlla ku dul yow waaye kàbbar ca douche ya delluwaat ca gaal ya goole yàlla teerey noonu ya diigal gaal ga moo tax Sénégal am nañ leader am nañ champion am nañ mbër mu kenn mu sàmm yóbbu ko ca nit ñu weex ña yóbbu ko ca nit ñu ñuul ña bi hiinu baaxil bii da ku la anchiya wa bi doha bi xawlin saadixil maalum yóbbul fa gën a sori ci penku fa gën a sori ci sawu tallalal ku mel ni sëñ Tuubaa musul am sëriñ Tuubaa kenn la misaalum sëriñ Tuubaa musul am ginnaaw nabi tab xarnu duutu am ginnaaw sëriñ Tuubaa kon sëriñ Tuubaa nañ def la sëñ Fallu na ko nankutum na ko katiyiw na ko taraw liis ji jaloore ku sañoon muy sa kok ku sañoon muy sa sëriñ ku sañoon muy sa maam ku sañoon muy sa baay nun bamba la am sëñ tuubaa lañu am kenn du daam kenn du daam mbakke te kenn du daam kenn du daam kenn du daam mbakke kenn du daam cey may nga ma may nga ma une minute de euh, waaw noonu rek noonu koy fàttali xamal ni kilifa yépp Touba ñu ngi jàkkaarloog julli géej gi tey te Serigne Mountakha la ma ko ñëpp dégg nañ ko nee na ko def ci alxuraan sikkar ak xasida ana sëñ Modou Mbaye Samb kaay Alaaji Mbàkke fay ñëw na ma nga ne toog ak délégation Masalikul Jinaan Alaaji Samba Jaw Ali Wañ Cheikh Samb tabarkàlla gis nañ leen macha allah waaw bu ko defee rek Euh, soxna maam Faati Mbàkke si Sidi Moxtaar Daaru Marnaan ah ñëw na maa nga ci wut soxna Soodu xuma liste baa ngi ñëw bu ñëw ñëpp dana tudd incha allah waaw waaw ah gaaw bu na pare ma ma jàng soxna yi fi ñekk sëñ Modou Bay Samb soxna Soodu xuma dafa fa wax ni soxna Adama Saw ñëw na kuréelu jàmm ji soxna maam Faati Mbakke soxna maam Bousso Mbakke Serigne Sidi Mbakke soxna maam Faati Mbakke bintu Serigne Sidi Mokhtar maam Mariam Mbakke mu sëñ Abdoulaye Mbakke borom dër bi soxna May mu Serigne Fàllu ñi ñëpp sax eh, eh, liiru naa leen soxna May moom sheikh Abdoul Ahad waaw soxna May bu Serigne Fallou aussi ñëw na bisimilah waaw.